commence ay téeméeri téeméeri combattant yu baas yu jàkkaay dañoo jël euh, dogal daal jóge ca àll wa di sax cérémonie officielle bi nga xam ne amoon na démb jëm ci teg nga nay ci suuf dogal boobu nag rafet nañ ko bu baax a baax ngir jàmm ñëwaat ca Casamance jàmm ñu ànd dundanoo ànd ak jàmm ak salaam lii mooy li ñu war a waxtaanee tey ci dibéer gi ci màggalu Sëriñ Abdul Ahad Mbacké xew-xew diine bi nag euh, tey lañ koy xaar nii nag talibé murid nag euh, di fàttaliku nitu yàlla fanweeri at gannaaw ba mu wujjee boromam mbindam ak njàngalem lu ci ëpp moom it sëñ Abdou Lahad Mbacké mu ngi jëmoon rek ci fexe ba ay saafara am ci wàllu social la koom-koom ñaar pàcc xibaar yi tàggateeram xam ngeen tey mooy demi-finale kan U17 maanaam ñi amagul fukki ak ñaar foofu ci Algérie Sénégal war a tas ñi di waa Burkina Faso tey ci ngoon la bu ñeenti waxtu jotee leexali ci biir xibaar yi ci technique bi Abdou Thiam asalaamaaleykum Seydou leen jàmm ci rajo bi ngeen tàmmu RFM dañu wutali Bambey jàmbaarlooy démb métti woon loolu diggante étudiants yi ak yu université Alioune Diop yu bu Bambey ak way taq der ya am nag fukki yu amee gaañu gaañu fukki ñeent ci ay étudiants lañ teg loxo ñu nag jàpp ne daal directeur bu CROUS euh, moom mooy responsable bi la situation ci ab communiqué nag directeur ba jël dogal sax tëj restaurant yi euh, euh, niki démb ci samedi bi leexaleeg Babacar Diouf ginnaaw jàppante yu métti yi dox diggante étudiants yi ak force de l'ordre yi ci université Alioune Diop bu Bambey tey ci suba si am na lu tolloog fukk ak ñeenti étudiants yoo xam ne nii teg nañ leen loxo ba fi mu nekk nii ñu ngi ci commissariat central bu police bu Bambey président amical étudiants yi xam le ne lu ëpp fukki étudiants am nañu ay gaañu gaañu ba fi mu nekk nii ñu ngi leen di faj. Euh, maa ngi tudd Papa Diaw Ngom nekk président amical de l'UFR SATEC euh, fii ci université Alioune Diop bu Bambey bu ñu defee négociation plus de sept mois nag. tey wàcc nañ ci tali bi parce que dañ ko def ndaxte démb directeur du CROUS dafa jëloon décision daal di tëj restaurant yëpp restaurant université bi fi ñu toll ni université Anta Diop bu Bambey am na plus de dix am nañ ko plus de dix ak ñaari étudiants yoo xam ne leen arrêté dont le président de l'UFR SDD donc euh, muy situation bu ñuy naqarloo depuis loolu it ñun ñi ngi jéem mais le directeur même n'a pas ñu nous recevoir. ci communiqué bi nga xam ne def nañ ko. direction COUS wax ne dina tëj restaurant yi nga xam ne ñoo nekk ci campus UADB tey ci samedi ji ci 15 li ñu wax nag ne moo ko waral du lenn lu li nga xam ne mooy grève yu métti yi te ànd ak violence yu ñuy enregistré ci campus su Ngoundiane Diourbel ak Bombay Bombay RFM Babacar noon noonu la tension bi méttee woon ca UFR euh, santé ak développement durable ca université ba tey foofee ca Bambey section Diourbel. étudiants yi nag dañoo dem ubbi par force euh, buntu yi restaurant bi ngir mën a xewlu te sax yoruñu woon ticket ni ki sax dem direction bu Crous foofu la jaare tëj restaurant bi étudiants yi nag ci assemblée générale itam nakanu restaurant ba na mu salte Alimatu Sarr UFR bu Diourbel ndongo yi ñoom ñëpp tey ca waañ wala ñu nekk ngir togg lu ñu lekk daal di bàyyi njàng mi mile mbir nag ñëw gannaaw bi ñu amalee woon journée sans ticket boobaak léegi def na weer ngir jafe-jafe yi am foofee daal di mën a antu waaye nag àjjuma ji direction CROUS ne faw ñu joxe ticket ngir mën a lekk li ni mel parewuñ ngir nangu ko Franck Maturé Niafuna ab étudiant la. depuis démb ak métit mu ñëw mu restaurant yi ku joxew ticket doo lekk te loolu si démb si suba la te avisé wul dara ñu ñëw ñu ne si suba si étudiants yi duñ ndékki tant que joxewuñu seen i ticket ñu ñëw démb jàmmaarloo ak ñoom fii nii ba ñu am gain de ñu ñëw ñu ne ñu añ bi ñu togg loo xam ni benn étudiant su ci lekkee ñaar duñ ci lekk loolu jaadul yoon. ñuy xamle ni waxtaan ya ñu tàmbali woon ak Crous dara ant wu ca. ñu ne ñu tey dinañu añ ñu ndékki danañu reer loolu mooy situation bi dina dellu si comme nu mu meloon. nekk loolu yëpp. ay naxaat parce que dañoo ñëw tey si suba au lieu de plus de trois cent cinquante plats yoo xam ne étudiants war nañ ko ndékkee ñu indi ñu cent te fii nii daam ñu fi amoon examen ak ay devoir ak yu ne ñu ñëw añ bi noonu ñoom ñu woote ñu ne waa restaurant bi bu leen togg añ daaji suñu bopp ñu ne ñun dañuy toggal suñu bopp par force parce que ñun dañoo bëgg a jàng bërëb bi nag waañ wa toggee ñam yi ndongo yi war a lekk anam ba daal dina jéggi dayoo ba sax yenn saay di gàllankoor seen i wér gi yaram yow nga war a dem hôpital nga naan sa patient faa nga nekk fu baax faa ngay lekk lu baax yow mi dàq ko lekk lu bon dañoo sonn xar yi lañ fay toogal wala lool ak loolu. yile ndongo nekk ci UFR santé développement durable université Alioune Diop bu Bombay yeta nekk fii ci njaareem ñu ngi woo opinion publique bi ci mbir mi nga xamante ni moo ngi fay xew balaa rek ñu leen di déggaat. chaque jour di bàyyi suñu cours yi di ñëw di toogal suñu bopp loolu moom wax dëgg su fa tollee dañuy xëy dem ñibbi ba pare ñu xool lu ñuy def. Diourbel Alimatou Sarr rajo Futur Média. direction bu kuréel bi foofee nag ne moom daal bekku na ngir waxtaan dal dem ba saafara am du nangu benn étudiant di dugg ci restaurant te yoroo ticket. chef service administratif bu CROUS bu Bambey ma nga bu yowaalewoon Fall ci micro bi Kalimatu Sarr dafa am benn ticket boo xam ne nga ne moom la course yor étudiants yi nag lépp lu ñuy laaj rek li koy saafara xaalis moo koy def donc su fekkee ne xaalis moo koy def te xaalis bi nga xamante ne yow da nga am loo ci war a joxe da nga taxaw lànk bañ ni doo ko joxee day jafe jafe lool ci ñu indi saafara yi nga xamante ni wala la ñu war a indi ci li nga xamante ni da nga bëgg ñu saafaral la ko ndax ñaari weer a ngi nii lépp loo xamante ni dafa jëm ci restauration bi daanaka lépp ci budget course lañ koy defe maanaam subvention bi nga xam ne état bi moom moom la jox ci lañ koy defee te ci yoon dañoo waroon a jël ci li ñu état bi jox boole jël ci li nga xamante ni mooy jóge ci leen ndongo yi di cotiser ñu mën ci saafara jafe-jafe yi mais di ci fay restauration di ci fay salaire yi donc ñaari weer a ngi nii ñuy waxtaan ak dongo yi ñaari weer a ngi nii ñuy jéem a trouver ay solution ak ñoom mais dem nañ ba toll jamono boo xamante ni situation bi compliqué na mënatul continuer ñu woo leen waxtaan ak ñoom alerter leen wax leen ni situation bi ñu nekk nii mënatul continuer suñu sañoon ngeen dellu ginnaaw ci li ngeen ne mais de ñaari weer yëpp ñu dégg léeg-léeg da ngay gis restauration yi bu waroon a am ñaari junni nit ñoo fay nekk léeg-léeg da nga dem ba ñetti junniy nit parce que léeg-léeg da gis wax ne day dugg di duggaat di lekkaat donc loolu dafa am njeexital lu am solo ci ci bu muy def ci budget course moo taxit ñu jël ay dogal pour xamal leen ni leen continuer di lekk doo fay moom mënatul wéy donc faaw ñu toog ci taabal ji waxtaan ngir am ay solutions mu nekkoon pàcc bi nga xam ne ñu ko jagloon ci li nga xam ne moo xew démb foofee ca université Cheikh Anta Diop bu Bambey pour man kuréel bu boole agent yu ñu dénk juróomeelu recensement général bu askan wi ak dëkkuwaay fa ci Sénégal ñoom it nu ngay naqarlu euh, taxawaayu ANSD ne xamuñu am na lu waral ba tey gisuñu daal benn jéego bu responsable yi amal ngir indi ay saafara ci seen i ndàmpaay lu jëm ci transport ak assurance ñoom ñi day agent yi ñu dénk boobu la liggéey ak yeneen njaga seen wax seen i kàddu ci micro beeg Ndeye Mate biñ lay recruter waxuñ la carrément li nga xam ne moom moo doon xaar si terrain bi ngay dem au cours de la formation ngay jànkontre ak ay bees yoo xam ne mu wóor la ne lii nii travail bu colossal alors que ñoom li nga xam ne moom lañ nar a fay agent recenseur yi muy cette somme modique de mille francs avec des conditions yoo xam ne c'est extrêmement pénible loolu ñu koy ñaawlu ba fa ñaawlu yem te li ñu constaté si activité bi mooy ANSD dafa wax ne maanaam a yëpp boo ko boolee sax mu dul sax ñeent fukki junni parce que nit aussi xam nga ne Sénégal nga bëgg déplacer yu commune ba commune malgré loolu loolu amul li ñuy fay aussi ñu ngi doon ñaan ANSD mu xoolaat ko mais ANSD au lieu mu répondre ñu favorablement moom dafa préféré infiltrer délégué yi commencé di des essayer di aussi li mu def moo di jël délégué yi nga xamante ñoom ñoo doon xeex combat bi yëpp mettre leen dans une liste que tout simplement autorité bi dafa sentir que ñun ñoo ngi déranger et ñun li ñuy wax arrangé wu ko moom mu def le tout pour génne ñu automatiquement dans cette liste rouge là nag la ñuy ñaalu parce que buñ demee ba dëkk Sénégal nga nekk si sa biir réew mais amatoo droit wax quoi que quoi que ce soit on constate que y a boo xam ne c'est une dictature rampante ñu ngi wax nag ANSD mu jéem a revenir à la région bi tam ab coow la ca chambre consulaire nationale ay élu yu chambre bu Kaolack nag ñoom ñu mer ba futu la ñu nag bëgg mooy ñu daal di organiser lu amul app ay élection consulaire ngir ñu yeesal instance yi euh, ñu jox kaddu gu juróom benn la vice président chambre boobee di pap Malick fay ci micro bi ñuy fàttali ne que depuis 2010 chambre bi dafa nekk chambre bu ñu ràññee ci chambre yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal liggéey boobu nga xam ne def na ko fii moom président mu waraloon ba ay moromam ay naataangoom yóbbu ko jox ko bopp union chambre yi nga xam ne ñoo lalu fi yëpp ci biir Sénégal. loolu nag dafa am ñeneen ñoo xam ne nii xëy na liggéey boobu yëpp da leen di déranger wala moom personnalité am di ko déranger ba xoolatuñ daal luy texte wala règlement waaye daal place ba mu toog daal lañ bëgg a jël te nañ ko bëgg a foqar ne gis nañ ne laluwul ci lenn lenn lenn loo xam ne daal lu xel mën a nangu la. ah moo tax tey ñi nga xam ne ñooy élu sembre de commerce mooy ñi nga ci Kaolack fii ñuy def déclaration bi di won ne fësal ah sunu ànd sunu jàppale mais sunu engagement aussi ci côté président Serigne Mboup ba nga xam ne ni nga bi nga xam ne moom bokk na ci ñi ñu mën a jàppee tey jii ne ah, ay patriote lañ yoo xam ne fa ñu yóbbu économie bi kenn du ko werante te gis nañ ne c'est dans l'intérêt du Sénégal waaw ah, di dànkaafu nag ñooñu nga xam ne ni la leen tax a jóg dara lu mooy ay jikkoy sàmbaay boy que ni liggéey yooyu daal vraiment ñu xam ne war nañ ko mën a dépasser te ñaan nguur gi mu jublu ci ay élections yu claires yoo xam ne nii ah buñ ci jógee kenn du laam-laamee ka ca nekk fa nga toog ne sa yayeef la ak sa moomeel ñi moom dañoo amal seen doxum ñaxtu di askanu Kitim ca commune bu Ñanga département bu Goudomp li ñu bëgg mooy ñu daal leen a jokkaleeg euh, village euh, maanaam ñu jokkale seen village boobu ak courant ndax am na ay poto yoo xam ne dañ ko fa samp 2021 ba tey waaye amul benn bu ci dox Bakary Konté askan bu nekk fii ci diwaanu Kitim ak ñetti yeneen village yoo xamante ne ñoom ñoo ko wër ñoom nag ñoo daal di wàcc si mbedd yi wane seen nakar ñu ne nag dañu bëgg ñu daal di indi courant seen dëkk Maître Kandé moo yore seen kaddu. jour pour jour presque def na ñaari at yoo xam ne def nañu poto yi indi nañu fii lii mais dara dara dara dara bougé gul ba léegi matériel yëpp ñu ngi donc loolu nag xam ne ne fu mu nekkee ni ñu mënatuñu toog mënatuñu dund parce que suñu dund bi dafa metti parce que chef de l'État bi bu mu ñëwee sur le euh, euh, le conseil ministériel décentralisé au niveau la région de Sédhiou dafa la ne képp ku amoon chantier au niveau de la région de Sédhiou nañu def tout pour chantier yi jeex pour ñu finaliser chantier mais depuis boobu ba léegi ñun suñu chantier kenn laalagu président association pour le développement de Kitim di ne ñàkkum courant bi dafa indi ay gàllankoor yi bëri fii ci diwaan bi ay ay liggéeykat lañ ay artisan lañ ñu ngi yore seen métier mais mënuñu def seen métier ko waree parce que amuñu courant ñu si gën a nañu si àll bi pour dem ci ville ñu ngi ci jafe-jafe boobu ah ci deuxième troisième élément amuñu ndox bu sell zone bi amul benn forage fu mu nekk nii ci teen yi lañu la suñu jigéen yi doon su ngeen gisee gisee gis suñu ngi si école mais mënuñu mënuñu ne ordinateur mënuñu def mënuñu liggéey si ordinateur parce que xamuñu nuñ koy defaree. beneen jafe-jafe bu ñuy dund ñàkkum ndox ba tax na ñu bëri ci teel la ñuy dem daal di root pour ñu mën a naan bu ñu defee seen marché nag dañu jël benn mémorandum ñi daal koy déposé si sous préfecture bu Simbandi Birasu ñi daal koy jox kooku di Ousmane Sané ñoom nag ñi ne bu fekkee saafara wuñu seen jafe-jafe ci ay bés rek dinañ wàccaat si mbedd yi daal di wone seen nakar Bakary Konté Sédhiou rajo Futurs Médias pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. muy guléet ci tànk yi dox jàmm euh, foofe ca Casamance mongoon euh, moom moo dala niki dem cérémonie officielle ngir ñu teg ngànnaay ci suuf di ay combattant yu baas bu jàkkaay ñoom ñu def ni nu mel ñu koy rafetlu ay téeméeri téeméeri combattant nag ñu mu jël ba euh, jël sax dogal jóge ca àll wa di nag cérémonie boo xam ne fekkee woon na ko ñu bari ci kilifa yi ak ñi taxaw ngir yombal yëf yi Ba ngànnaay yi nga xam ne nag delloo nañ ko waa Malawi daanaka boo seetloo ay AK-7 ay kalachnikov ay obus ay mine antipersonnel ak yeneen ak yeneen delloo gànnaay yooyu nga xam ne nag faction bu jakaay amal nañ ko moo ngi amee ci teewaayu kilifa yu bare bare mu ngi mel ni kii di amiral Farba Sarr nga xam ne moom mooy coordonnateur comité ad hoc li ngeen gis ni tey mujjantal la bi nga xam ne buñ ko tàmbalee yàgg na ay ndaje yu bare bare nga xam ne amal nañ ko ñun suñ diggante combattant yi ànd ceeg njàppandal IRAPA waa COSPAC ak centre endurant loolu moo indi jàmm ji tey d'accord pour le dépôt des armes. ñii nga xam ne ñoo di waa IRAPA nga xam ne ñoom ñooy interlocutrice civile bu base bu jàkkaay nee nañu mbir mi amul sikk sàkk combattant yi teg nañ ngànnaay ci suuf te duñ ci dellu ginnaaw Lamine Koli. tout un cantonnement ab cantonnement lëmm moo teg tey ngànnaay ci suuf na ngeen gëm ni loolu li sax seen biir xol la loolu nag maa ngi koy rafetlu bu baax a baax. je salue ce bi ñuy xaatim nag li nga xam ne moo di accord bi état bi am na engagement nga xam ne nag jël na ko kii di Henri Ndeki nga xam ne moom moo jiite organisation sous-régionale des organisations

xam ne dafay wone taxawaay bi nga xam ne am ngeen ko jublu ci wàllu wutum jàmm ji ci Casamance. pour boobu nga xam ne nag mooy ëmb organisation nga xam ne ñoom ñooy saboter processus de paix bi Henri Ndéki. et pourquoi bloquer mooy ñi nga xam ne dañuy taxaw di yàq li nga xam ne moo di wutum jàmm ci Casamance amul benn ndam bi nga xam ne dañ ko ci jëlee loolu bëgg naa ñu dàkkal. car c'est les intérêts personnels qui ont bloqué le processus pendant ci fàttali ñi nga xam ne ñoo di centre Henri Iran pour le dialogue humanitaire nga xam ne dugal nañ seen loxo bu baax a baax ci wutum jàmm ji ci Casamance teewee nañ li nga xam ne mooy li am Lamine Ba ñu nga ci léegi-léegi muy nag rafetlu taxawaay bi nga xam Sénégal amoon na ko foofu ca Casamance parce sous région bi nga jàmm am Union européenne nag ne taxaw na ngir sax dimbali wala yokk ci li mu doon dimbale Sénégal ba ñu fàtte li nga xam ne amoon na ca Casamance Jean-Marc Tissane moom moo nekkoon représentant bu Union européenne ca waxtaane foofee ak Lamine Ba. Ce jour est historique. car il marque indéniablement un pas décisif vers une paix durable. bés bii mën na jàpp ne dugg na ci taarixa Sénégal ndaxte guleet ñu koy gis bi ñu tàmbalee li nga xam ne moo di wutum jàmm ji ci Casamance ba léegi Union européenne ni ngeen ko xamee daanaka fépp ci àdduna bi taxawaay boobu la ñu am mooy lépp li nga xam ne dafay delloo jàmm ci bërëb yi ñu taxaw si Casamance nag loolu bokk na ci li ñu fi tax toog bés bu ne ñu ngi xaar suñu tànk tubéy ngir fitna wi nga xam ne daanaka yàgg na loolu ñu dàkkal ko ba faw jàppale réew yi ko wër ci dal ba tax na bu amee ay jafe-jafe Casamance mën na am njeexital si yeneen réew yi ko wër loolu moo tax Union européenne jàpp ne jàppale Sénégal ba li nga xam ne moo di fitna wi ci Casamance ñu dàkkal ko ba faw dafay am njëriñ bu baax a baax fii ci réew mi waaye ci réew ñu ko wër loolu moo tax ñu jàpp ne ñun waa Union européenne li nga xam ne taxawoon nañ ko ci Casamance duñ ci dellu ginnaaw fi léegi amuñu li nga xam ne namm nañ ko mooy fexe ba jàmm ji ñëw fi ba faw ñu bañ fi nemmeeku benn jafe-jafe. jaajëf Lamine Ba ci tekk yooyu lee kaddu euh, tey ci dibeer bi la ñuy ñu ngi waajal màggatu euh, màggalu Serigne Abdoul Ahad Mbacké euh, tele bi mu nag di fàttaliku nitu yàlla bi ak taxawaay bi nga xam ne mën na ko ci wàllu diine rawatina sax mbindam ak njàngaleem taxawoon bu baax a baax ci indee saafara ci wàllu sala koom-koom Papa la koy cay leexal fanweeri at ak ñeent gannaaw bu mu dëddoo Serigne Abdou Lahad di des ci xolub taalibe murid yi lee ñu doon ko woowee le bâtisseur suqaliku diwaan bu Touba daanaka ci loxoom la jaar moom mi nekkoon ñetteelu xalif bu Serigne Touba Khadim Rasoul mu nga xamante ne dafa des di yëm ñi nga xam ne ñooy taalibe yi lee Abdou Lahad bokk ci commission culturelle bi di dellu siwaat ci njàngaleem ak lépp li nga xamante ne yëngu woon na ci tableau bu moom moo ko sumb woon bàyyi ko fi ba ci bàqa gi nga xamante moom lañu ubbi ba ci université gi nga xam moo ko tàmbale woon miiré woon ko defal fa liggéey yu am solo ay mbindam ak ay njàngaleem doon loo xamante ba tey dafa des ci taarix te mu ren ngi daf ko daal firndeel bu baax a baax suñu sukkandikoo ci Serigne Abdou Lahad Bousso Ma Asta muy rafetlu bu baax a baax taxawaayu ki nga xamante ne dafa yàgg di dox ci lépp luy jàmm exemple xew sa ba a am la a wuutale yi la mu waxte noon Abdou Diouf ba Abdou Diouf jaar foofu ba jàmm am man na wax ci diggante këri diine yi am doon wax naan murit ak xaadir tiyaat ndax ñett bokk ak ndey la nga bëgg a tam ci bàyyi kii kon loolu jàmmoo na lépp ay jàmm la yoo xam ne jamono laaj na ko Cheikh Abdou doon ci exemple ñoo di exemple boobu ci njàngale Sëriñ Tuubaa ak ni ko Cheikh ba Lahad Mbacké dund la stand bi nga xamante ne moom la ñu def lépp li nga xamante ne ay photo laak yu ni mel bari ci taalibe yi ñëw di ko saytu ku naan Sëriñ Abdou Lahad dañuy wax toog di ko déglu jamono ji nga xamante ne réew mi yëngu na lool ndaw yi war nañu delluwaat ci njàngaleem Serigne Abdou Lahad Mbacké suñu sukkandiku ci Abdou Lahad Bousso Maasta fokk xale yi nangoo am kilifa kilifa nag boo ko am ci saaboo boo nekkee ci jafe-jafe waaye saa boo amee lu la neex kilifa day nangoo am sañ-sañu nga jàpp la nga gën a bëgg mun la bàyyi nga bàyyi la nga wan ginnaaw mun la jàpp fu nga jàpp. téeméeri at ak juróom-ñeent gannaaw ba Serigne Abdou Lahad Mbacké gane àdduna tey ji ñu dellu di ko màggal fas yéene amal njàngum alxuraan xasida ak yeneen ci berndeel Papa tuuba Gueye Touba rajo Futur Media. RFM Sport. ñu tàggatu ànd ceeg Papa Malick Diaw. dalee nag jàmm kon ci sport weekend mi nga xamee ni football lañ koy tàmbalee Coupe d'Afrique des Nations u nga xamee ni gaynde yi daañu amal niki dimanche gi seen demi-finale nar dox seen digganteeg Burkina Faso. voilà ta match bi moom entraîneur bi di Serigne Saliou Dia ma nga woon ca conférence de presse niki samedi gi kàddu yi mooy di yëkkati nag lenn la moo di demi-finale la te faaw ñu waaj ko ndax match gu am solo la rawatina pour gune bi ñu teewlu ko. am lu la wóor à 100 pour cent match bu nekk da nga koy jël ni mu ñëwee et c'est gagné quart de finale euh, ak demi-finale euh, daanaka match yi duñ benn bu nekk rek ak ni mu ñëwee ak ni nga koy joué ak ni nga koy attaqué ci njeexital wi final moo ñuy xaar di match yu métti te amuñ ci n'importe qui Burkina Faso lañ am mi nga xam ni euh, Coupe d'Afrique U17 yi moo ko gagné joué ñaari final 1999 ak 2001 Burkina Faso daanaka moo moom mooy gën a nekk à l'aise euh, waaye dinañ def suñu kéemtalaay kàttan joxe lépp ngir gagné ndaxte loolu moo ëpp solo te lool la ñuy retenir jël lépp def ko suñu côté. gën a ça veut dire il moom itam ma nga woon ca conférence de presse ba ci wetu entraîneur am di Abdou Salam Konaté ma nga xam ne bokk na ci ñu gën a fës rawatina ci milieu de terrain bile. la muy daal di xamle nag moo di quart de finale yi la ak match de poule lu ñu war fàtte la jublu li nga xam ne moom moo di demi finale yi daal di cay yokk ni li nga xam ne moo di message yi Kalidou Koulibaly di leen yónnee di capitaine ci ay loolu lu leen di yokk jom la ci compétition bi ñu nekk ñu teewlu ko. je pense que les équipes euh, nationales. équipe nationale yu Sénégal yi ñi fa nekk suñuy grand frère lañ bu ñu encouragé loolu du ñu yokk pression daf ñuy yokk jom euh, jàppale ñu euh, ñu gagné jàppale ñu itam ngir ñu gën a mën a concentré wu. yeneen match yi weesu na Burkina Faso moo nekk suñu kanam euh, mooy benn match boo xam ne tey jii ci lañ war a concentré wu euh, gagné ko euh, ndaxte demi-finale bi la. une autre demi-finale. Dia ak Abdou Salam Konaté kii tekki ay kàddoom di Mamadou Omar baax wax itam ni ci samdi gi moom kaaf génnee na yenn ci ay joueurs yi gën a xarañ ci phase de poule yi moom Amara Diouf. moom mooy meilleur joueur jamono ji ci li nga xam ne moom moo di compétition waaye itamit moom moo di meilleur buteur euh, boobu le kan gannaaw juróomi bi yi nga xam ne ma ngi koy daal di amal meilleur entraîneur bi ñu ngi koy daal di teg ci loxoy Serigne Saliou Dia moom di entraîneur u Sénégal kon programme bi ci dimanche kii nii lay daal di tëddee 16 demi-finale bay jiitu nara dox ci diggante Sénégal ak Burkina Faso buñ ca noppee 19h Maroc nara laale ak ki nga xam ne moom moo di Mali gannaaw loolu gannaaw Coupe d'Afrique bi wax ci football mim réew ci championnat local bi ak 21e journée bi nga xam ni ci samedi gi lañ ko daal di euh, tàmbali jaraaf moom ci ñaar fukk ak benneelu bëccëg bi euh, day daal am ndam gu am solo ci digganteem ak ki nga xam ne nii moom moo di bu euh, Saint-Louis foofee ca stade Iba Mar Diop muy match boo xamante ne nag li ko waral moo di coow li nga xamee ne amoon na ci takk der yi ak benn ci ay photographe yu jóge foofee ca Linguère moo waral coow loolu ñii di joueur waa Linguère daal di génn li nga xam ne moom moo di terrain bi ñu ànd ci gisu bojo attaquant yu jaraaf jéem nañu lépp waaye Linguère daal di dëgëral ba 82e minute solution bi bàyyeekoo ci défense bi Melo Ndiaye moo yéeg daal di dóor daan gardien bu Saint-Louis ñaareelu ndam bu tegaloo entraîneur jaraaf di ko rafetlu Abdou Gueye. jaraaf tey mas ak Linguère. ñëpp xam nañ ne match yu mag la tey jii Linguère dafa ñëw nekk ci benn dynamique bu baaxul bien vrai que ci ci boo jël ensemble saison bi yëpp dynamique baaxul bien vrai que seen dernier saison dañ gagné Tëngéej à domicile xamoon nañ nii la ñu mais dans la semaine préparé nañ ko xam ne bu ñu ñëwee <laughs> duñ ñu dañuy ñëw pour jël benn point bu ñu amee dara pour defal dëbb après semaine bi yëpp moom laa doon wax xale yi ma ne leen bit bi mun na teel a dugg mun xët-xët bu amoon seen digganteeg euh, takk der yi ki jiite délégation équipe bu ndar bi di ko ñaawlu Abdoulaye Dieye. dañu am suñ benn xam ne moom d'habitude ku ñuy dem il est dans l'enceinte autour du stade pour mën a def liggéeyam donc je ne sais pas honnêtement je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais on a vu les forces de l'ordre le brutaliser dóor dóor yu métti di ko génnee immédiatement suñu président bi wàcce si kaw ñëw. pour s'enquérir de nuvel nouvelles pour demander à ce qu'on arrête de le tabasser donc lui aussi il a su ñu def ko moom ñu def xale bi dóor ko dóor yu dugal ko si suufu bi ñu ne léegi ñun match bi tant que ñun ko ñun duñu football li si gën a doy waar mooy match bi xanaa bu mu amee arrêt daañ toog 45 minutes assuré que ni équipe bi jéewul mais defuñu ko mais dañu toog même pas 5 minutes le commissaire du match a demandé à ce que qu'on siffle la fin du match bi kon jox ndam waa Jaraaf kaddu bu mujj bi kon ñu koy xaarandi ci commission disciplinaire bu Ligue Youssouf euh, Bodian ci boobee jogante Jaraaf ak euh, Linguère Sonacos ca boobee jamono moom ma ngay daal di faqasal ki nga xamee ni moom moo di jàmbaar gannaaw ba mu ko dalalee ca stade Ely Manel Fall daf koy daan di daan benn bal dara muy ndam loo xamee ni dana leen dimbali ngir ñu des ci li nga xamee ni moom moo di daanaka milieu tableau bi sori zone rouge bi waaye ci booram day daal di faagaagal loolu ki nga xamee ni moom moo di jàmbaar moom mi nekk ci course titre bi gannaaw ndam li ñu teew teewlu ci seen entraîneur di Sidaat Sarr ci micro Idi Wan. waaw ndam moom foo dafay ñu li naan day nekk à point tay bi nag moo ci parce que daf ñuy assurer que ni liñ suñu objectif ñu ngi koy atteindre parce que ñun aussi bu leen fàtte ni dafa am ay objectifs yu ñu fixé woon te match tay bi dafa déterminant woon si ñun. muy maintien bi. waaw mun naa ko waxee noonu parce que équipe bu toog ñeenti at nekkoo ci élite bi soo ci dugg see dafa am nooy taxawee kër jàmbur doo dugg rek commencé dugg ci salle ba da dugg ci perron bi toog ñu ñu dalal la nga door a yéeg ndànk dugg ci salle bi ñun loolu moo dal Sonatel réussite am na ci parce que bon am na ñu a mis en place benn stratégie ñu élaboré occasion bu bal bu baax ci premier minute yi booy assuré ko mais comme ni nga ko waxee sànq ci français amoon na opportunité pour pour aggraver score bi mais bon du ma ni précipitation parfois manque day manque de moo ñu dal te loolu ak football moo ànd donc dama leen di bravo di leen ci xol. mu doonoon Sidath Sarr entraîneur u ci ndam lu am solo googu ñu am ci kaw jàmbaar muy ndam loo xam ne maa ngi koy wax léegi dana faagaagal jàmbaar li ko waral moo di moom ak ki nga xam ne ni moom la moom lay xëccool boppu classement bi di génération foot ci boobee jamono day fekki CNEPS excellence daan ko ñaari bal ci dara ba tax na jamono ji ci di génération foot. moom mooy leader ci boppu classement boobule ci wàllum Ligue 1 Tëngéej ci boobee jamono itam ma ngay daal di daan Pikine benn bal ci dara daanaka sax bii bi ci jeexitalu match bu la dugg ci 90e minute bàyyi Jibi Diop moom ma dugal ci penalti loolu la itamit du ndam li njëkk. di ndam li njëkk pour ki nga xamee ni moom moo di Cheikh Gueye gannaaw ba mu nekkee ci boppu euh, Tëngéej FC boobule euh, wëyal programme bi ni ki dimanche ki ak 21e journée bi ca stade Ibrahima Boye jàpp ni Casa Sport day fekki Guédiawaye FC ci boobee jamono ca stade Caroline Faye stade de Mbour moom di fa dalal dakaar sacré ci Ligue de ñaari jogante moom moo amoon ni ki samedi gi Port Tembo ak Amitié ku ci nekk dugal benn bi euh, naka noonu Tembo ci diggante Walidane ak Agel waaye kenn jotu la dugal sa moroom football bitim réew la ñuy àddu ji bi la yoon ci championnat de France nga xam ne Strasbourg moom daanaka mooy fësaat ci boobule match ndax ab doublé lay daal am jamono ji mu am ñaar fukki bii kon ci li nga xam ni moom moo di championnat bu France boobule. ci boobee jamono euh, kii di Paris Saint-Germain daan Ajaccio juróomi bal ci dara ca Angleterre Leeds moom day témboog Newcastle ku ci nekk dugal ñaari bi Southampton daanu ci digganteem ak Fulham ni ko fekk si daan ko ñaari bal ci dara day daal di témboog Nottingham Forest ku ci nekk dugal ñaari bi Nottingham Forest bi nga xamee ni Moussa Niakhaté ma nga doon titulaire kii di Cheikhou Kouyaté ba match ba desee juróomi simili lay daal di dugg ci boobee jamono United moom day daan Wolverhampton ñaari bal ci dara xeex bi ngir jëm ca Ligue des champions mook Liverpool kon di woy ba tey Crystal Palace daan Bournemouth ñaari bal ci dara ca Espagne la koy woyale ki nga xamee ni moom moo di euh, Real moom benn bal ci dara daal lay daan Getafe euh, Sociedad ak Girona témboog ci nekk dugal ñaari bi bi Bilbao daan euh, wala boog Bilbao daanu ci digganteem ak Villarreal mi ko dalal juróomi bal ci benn kii itamit di doomu Sénégal di Nicolas Jackson amal ci ab doublé jàll ca Allemagne nga xam ne match ba fay gën a fës doxoon ci diggante Bayern ak Schalke 04 juróom benni bal ci dara la Bayern di daan. kii di doomu Sénégal bi di Sadio Mané du doon titulaire ba match ba desee juróomi simili ca lay daal di euh, dugg ca boobee jamono Dortmund daan Mönchengladbach juróomi bal ci ñaar kon ba tey benn poñ dox ci diggante ñaari équipe yooyee ci Italie Salernitana moom daan Atalanta benn bal ci dara Boulaye Dia jotulu dugal ci boobee euh, jongante jàll ci beneen discipline jeexalee ko sport weekend di làmb nga xamee ni jamono ji lii di 23e édition drapeau chef Dakar niki samedi ak dimanche gile ci samedi gi sax lañ ko daal di tàmbali waaye ci dimanche gi la ñuy woyal ak li nga xam ne moom moo di final yi waaye ci loolee kii di Manga 2 ancien lutteur ba noppi di doon itam euh, chargé euh, de la lutte simple ci CNG dellu si na ci euh, innovation maanaam doxalin gu bees gi nga xamee ne amal nañu ko ci 23e édition bi lañu ñu teewlu ko ci micro Malal Junior Diagne. Euh, am na mbégte lool parce que bu ñu ñëwee ba Saint-Louis je pense que innovation yi bari nañu lu ñu wax open dañ ko bàyyi ba indiwaat ko te ñu indiwaat ko encore à Saint-Louis. Mhm. rawatina nag xale yu ndaw yi ñuy jël indi leen fii. ñu am ñu leen encadré ba neuf régions ñoo ci participé benn région rek sige j'ai bonne mémoire moo ñëw ak trois filles wax ah, ak trois garçons boo xam ne amul fii mais yeneen yëpp am nañu fii mm-hmm. trois filles trois garçons donc tey techniciens yi foofu la ñu defee seen tirage def choix région yu ñëw région bi bii lay tase kii bii lay tase ils vont faire euh, leur choix donc ci tirage foofu lañ ko liggéeyee sur place les techniciens. open bi naka lay demee. open bi comme ni ñu koy defee rek euh, y a deux grands champions trois à grands champions par euh, région on va les prendre aussi. Mm -hmm. les meilleurs ñoom ñu ñu indi ñu compétir ko. ci drapeau bi ndax gis ngeen am ngeen satisfaction euh, nañu dans en premier temps c'est pas encore fini mais lu ñu amagum satisfaction totale la ñu am décoration bi stade bi gis nañ ko am na innovation bu ci donc manifestation bi aussi euh, ñu bërëkat yi gis nga leen c'est de taille la ñu ñëw yëpp c'est des catégories de taille yoo xam ne technicien lañu donc euh, je pense que le niveau est très bien. Manga de di kon chargé lutte simple foofee ca CNG ci waxtaanam ak Malal Junior Diagne. ci innovation 23e édition drapeau chef de l'État kon mbokk yi ñu jeexal sport week-end ak euh, bile xibaar nga xamee ni euh, ci wàccaayu coupe du monde U20 ca Argentine kii di Sénégal ma ngay amal ab match de préparation ci digganteem ak euh, États-Unis waaye nag ñoom américain yi ñoom ñoo daal di daan ñaari bal ci benn nga xamee ni ci tembo gi sax ca tembo moom la ñu amaloon ci mi bi waaye nag ci deuxième mi bi ñoom américains yi daal di dugal ñaari lu bi tax na kon Sénégal ñu jàpp ni ci matcham de préparation foofee ca Argentine seen diggante ak États-Unis dañ leen daal di daan ñaari bal ci benn kon mbokk yi fi la ñu yem ak yéen ci sport weekend di leen jaajëfal ci ànd gi jaajëfal Matar Sam mi féete woon ci wàllum xarale gi jox leen dig daje fi lekki ay simili ci yeneeni xibaaru tàggat yaram